gis nañ à chaque fois même premier dialogue bi ñu nga fekk si kaso bi dañuy gis ni diine bi lañu njëkk jiital mais d' abord les hommes religieux ñooy ñëw ñu def ñaan après ñu wax Sidi Diamel ñëwoon na fa Ahmed Khalifa Niass après ñu gis waa euh, comment dirais-je église par protestant yi sax ñoo fa nekkoon dialogue bu njëkk ba protestant yi dañu fa def discours boo xam ni man ma koy wax et man je vais le dire ah man je suis musulman Seydina Mohamed la gëm Dîner islam laay xeexal mouvement nitu dëgg ñu dañuy xeexal diine l'islam moom lañ xam moom lañ gëm kii catholique la ci mouvement bi la bokk day xeexal diine christianisme parce que gëm nañu religion yi rek ñoo mën a jëriñ religion nous nous jëriñ mais man dama gëm ni catholique yi dañoo raw sénégalais yi fii jullit Séné jullitu Sénégal parce que catholique ils ont réussi ñoom seen doom yi ñu yor leen ci seen faut faire que école catholique am na église baa ngi ci wetam ñu jàngal seen i doom catéchisme yar leen bàyyiwuñu seen doom yi ak tubaab yi ñun nag dañoo matul jullit ñu nekk buñ jullit

maral président bi di taasoo ko naan ay ngelaw la ki def yu waye di yu doye di yoo xamante la ci diine bi Sénégal fi ci Sénégal fu mu tollu ci religion ak fi diine bi toll négligence boobu loolu nag dara warlu ko dul parce que ñun dañu sàggan ba réew mi di dox ci noo xamante ni diine bokk ci catholique yi organisé wu ñom fexé ba ñom seeni doom diine bokk seen seen biir ñun nak suñu doom organisé wuñ ko jàngale ñu alcorane ci école yi fexe ñu diine bi dugg ci institution yi diine bi mënu fexé ba dañu bëgg formel dañu bëgg diine bi formel dafa informel Sénégal diine dafa informel dañu bëgg mu formel loolu bokk ni ci combat yi ñuy xeex premier dialogue bi protestant yi dañu fa wax bu am solo def foofu kàddu yoon ci yàlla Mouhamed laa dégg te protestant yi man chaque fois bu ñoom bu ñuy wax catholique yi man ci ñoom laay dégg yoon ci yàlla Mouhamed bi ma xam man tarbiyo ko di ko jàll mu indi ma ci diine bi may jàmm boog laa bëgg astaghfirullah yoon ci bi ñu gëm lim ñuy jàngal ñu gëm ko di ko dund nekk dëgg si ñun parce que ñun diine moo ñu ñor ma gëm muy Seydina Mouhamed discours am man ci protestant yi laa koy dégg ci chrétiens yi laa koy dégg dégg moo ko si ñu taxafoon na ñoom diine ci yàlla ku

mais wax ma ni dialogue ñi koy def mooy ñi nga xam dañu réro ñi fa nekkoon ñëpp ñom ñoo bokk gis-gis kon dialogue opposition bi nak dama ni dañu waron dem ci dialogue bi mais nu ñuy démé ci dialogue bi dañu waron exiger Macky Sall imposer ko forme de dialogue parce que Macky Sall n'est plus président du Sénégal il n'est plus légitime du moom mooy taxaw di tànn nan la ñuy defee dialogue wala nan la ñuy Macky Sall n'est plus légitime suma koy wax dama ni dañ naan Macky Sall nek na président ñu né le 2 avril lay lay ci mandat bi périmé quoi le mandat bi di jeex mais en réalité loolu day officiel rek mais bo xolé officieusement Macky Sall bi campagne bi ibbee la nekkatul président normalement signature waratu am ñu jël ben décision au nom au de l'état du Sénégal parce que tout kilifa campagne bi léegi ñep instant yi Sénégal amul président. parce que fi élection da la fi bo xamni ne démocratie dafa am doole dafa am ay alternance dañu développer ñun dañoo mën a acquis démocratique yo xam dañ ko dépassé won bu yàgg am na yoo xam dépasser won nañ ko fi date élection dafa figurer ci constitution au Sénégal le 25 février. lolu du ken ken mënu ko laal constitution lolu kenn mënu ko laal dafa intangible ken du ko laal. moom mu ñëw laal kon moom dafa ñëw jalgati lool ak yeneen ak yeneen boo xam bu ñu jalgati institution yëpp constitution yëpp lépp la yàq respecté wul dara léegi nag comme délinquant la nekk du président maa moo yam bu dialogue di am dañ koy imposer forme de dialogue bi ne ko kaay toog ci public bi fi ñuy taxaw bu ñuy dialogue ñuy taxaw liy wax ñuy wax ñu ñëw gan ñi fi ñuy taxaw foofu ngay taxaw wax ñu dem ci église bi ñu invité ñu ñu yenee ñu benn membre ñu dem ci bois sacré ñu yonañu ñu benn membre ñu dem ci seigne moutakha mu yonañu ñu benn membre Tivaouane même chose Touba même chose menda bay même chose ñu dem ci bois sacré ñom ñep ñoy tok ci table bi énumérer point yi ñu wara a dialoguer laax bu baaxul léegi moom ñun ñu bañ ne demuñu tay ñi ngi bay ak Macky Sall tàngoon bi diko bay ak dëkk bi fu mu jëmam ñu moy fi Alassane Ouattara dem ak ak Côte d'Ivoire ñep dem ba gëdd ko bay ko réew mu tok loolu bëgg man gëm mu bokuma ci ñi gëm ni Macky Sall de quitter pouvoir bi ni ni rek ñi ñi toog noonu mu quitter ko man gëmuma lool man gëmuma lool ndax

dafa carrément Macky Sall il est fou il est devenu fou dafa dem carrément il est fou. pour ñu dimbali ko ñun le peuple sénégalais parce que Sénégal réew lañ ko jox de du il faut ñu dem ci yi muy nous, il ko à la raison delloosi ko wax ko lu muy dégg man tey dialogue bi su ma invité nous, dem wax Macky Sall lu muy dégg te xam ne malheureusement nous, sax mais nous, nous, si biir Macky Sall naa ko nous, su les day jël ay pas bi parce que nous, nous xam ne moom xam ne ni cinquante ans ko 70 ans pour prison, nous mën de prison jaral ko ba faatu fekk des mais du ñu ak Macky Sall ndax dafa avez fait bi fonkul de yi Charlie Hebdo 95 ans de musulmans Sidi Kaba mu dem des choses. Euh, de lamentation ci choses. yi julli julli ci diplomatie Sénégal ak tant d'autres vous avez mu def jàpp ay sëriñu daara di dóor bëgg tëj daara yi def na fi ay vous jeex Sall des def ci parce que dafa recevoir imam